mais Diorin l'affaire Mame Mbaye Niang également wax na ne am na rapport bu amoon ba finalement yàlla sax moo mën nee na rapport yi mu ngi ca taw table et dina ko jébbal justice euh, là aussi wax na ba wax euh, baajo Camara ci wàllum ay kàddu yoo xam ne yëkkati dina ko tout simplement là aussi est-ce que nekkul loo xam ne euh, quand il fallait justement rek mu mu noppi ci ba justice daf liggéeyam. yow euh, euh, galerie bi. mais toujours ci populisme bi am na sax. jàpp na ay discours populiste la et parce que voilà. moo baax foo muy foo muy taal alim xam nga Mame Mbaye Niang mu dul woon rëcc nag booy. Ah, rapport bu ah. loolu wax démb mais li mujj wax du loolu de. ah Mame Mbaye nee na amul rapport bu ko mën a épinglé. li mujj wax du loolu de li mujj wax ne mooy en fait dëgg dëgg dëgg rapport am na <laughs> loolu Mame Mbaye Niang wax ah. et puis Mame Mbaye Niang il a été un bon. ah ouais moom dañ ko utiliser comme mission mission de suicide quoi Mame Mbaye Niang il s'est suicidé. s'est suicidé parce que ba Mbaye Niang ba njëkkee def jugement bi tëj Sonko trois mois de sursis deux cent millions de mandat dafa génn daal ne man am naa satisfaction. peuple bi ne ko garaawul ñun deux cent millions yi mën nañ ko fay. comprendre bu del siwaat ci guddi gi ñëw ne daal di kontaanul day def appel te moom deful appel procureur boo def appel te procureur boobu def appel moo fi dee ba tey de eh, procureur lan mooy ci diffamation <laughs> wax na ne dañoo gaaw gaawoon teg seen ay nit ñu di ma kale ak yooyu mayul sax temps ki ñu condamné mu jël mu jëw def kii yow ba ñu ko sax temps bu def appel am mais ñoom ñoo yàkkamti ñoom lan mooy seen yoon procureur lu mu war a lijjanti mooy ku ñuy tijji mais pas ku ñuy tëj. mais loolu dafa war a feeñ. Mm-hmm. et puis ci faatu ñi ci gaañu li ci yàqal ay nit ci ay fet kese waaye loolu tamit. ko war a leeral daal. dañ ko war a leeral quoi quand même. l'affaire des quarante cinq milliards également d'armes dëkk bi li fi war a leeral bëri na de kon. <laughs> mais Macky Sall dañ ko war a indiwaat. mais loolu moom c'est impossible selon les juristes. lu tax waaw nee na mënta mënta ne parce que ni ñu ko bëgg a jaarale mooy loolu. yow bëgg ko créé dañuy créé. <laughs> a une immunité bu am boo xam ne way way am na immunité boo xam ne. dañuy créé ah, plainte yooyu bu ñu ko mënul réaliser fii ci Sénégal dañ ko topp créé. CREI yi. ah CREI yi ban. CREI Cour pénale internationale ah ok CPI. CPI CPI vers excuse-moi. ce pays. lan lañ koy toppee. parce que plainte bi ngi mais plainte bi da nga lu Juan Branco wax la fois passée. Macky Sall trahison lañ koy toppee. ah mais nee nañ haute trahison c'est-à-dire dans un pays normal. dans un pays normal mënuñu constater ce qu'on a constaté pendant ces cinq dernières années le président s'en sort tranquillement dem toog Maroc di liggéeyal France mais tranquillement quoi dans un pays normal ak tout ce bordel qu'il a foutu ma ci terme bi mais suñu reparcourir ba xoolaat yenn dossiers rek moo commencé génn quand on parle de Mame effectivement il a été un pion bu ñu utiliser il avait pas d'ambition moo tax mu mu nangu ñu utiliser ko on parle bërki dem de Doro Gueye dans l'histoire de Doro Gueye on parle de Macky Sall am na yenn yoo xamante ni bu amee ci réew moom moo ko cité ah, je sais moom bu demee ba cité ko moom il a cité way effectivement bu demee ba cité ko mhm. nous on ne peut que jàpp jusqu'à ce que euh, am ñu gis ni bokk ci mais ce qu'il faut retenir c'est que dans un pays sérieux et normal tout ce qui s'est passé dans ce pays là au-delà de ñi ñu rey noté nañ ko depuis sànq mais rappelons que ces détournements yi fi am yu ci bari bari loxo Macky Sall daf ci jaar quand ah on parle de période Covid bi du moom moo dem assemblée nationale. ñu jox ko dérogation def état d'urgence maanaam mooy lépp loo décidé may nañ la nga def ko sans kenn saytu. Mhm. au bout de quelque temps qu'est-ce qu'on s'est compte que y vingt milliards ñu xamul fu mu jaar mais c'est la responsabilité de qui ñi ñuy tudd mun nañ leen tudd effectivement rapport yi mun nañ leen épingler mais kan moo ñëwoon ci assemblée nationale devant les sénégalais ni leen jox leen ma état d'urgence lu ma bëgg ma signer ko en urgence. mais ta responsabilité n'est pas engagée parce que tu as été président de la République tu peux te de toute malversation tu peux te permettre nga def lu la neex boo paree nga dem toog tranquillement am ñoo xam te ñoom ngay saraxe ñu ñëw fii te ñooñu boo xoolee ba ca biir sax ay prête-noms kase lañ yow tu gères ce que tu as à gérer avec ta famille on pense que ça va se passer comme ça non quand le président quand dans le projet bu ñu ñëwee ñu ni dañuy wàññi pouvoir président de la république bi effectivement mais dafay impliquer aussi ki nga xamante ni moo fi nekkoon am na yenn état yoo xam bu ko bàyyee réew mi dafay laaj ñu woowi ko mu ñëw wax ñu li nga xamante ni moom lañ ko dénkoon pendant cette période là mu def ko Macky il part san bilan ah mais comment parle... est-ce qu'on peut non il mais part sans de Cap Manuel ah protocole Cap Manuel bi dégg nga gars yi da ko wax aussi quelque non non <laughs> Cap Manuel ah mais ah mais seulement politique aussi voilà non protocole Cap Manuel waaw gis nañu nommé ko aussi ci gouvernement bi euh, ñu ñëw euh, justement euh, Moustapha ci par rapport ak la réponse de Bougane Gueye Dany ki ah, n'a pas cherché de midi à heures euh, wax na li nga xam ne moo di dëggam Ousmane Sonko que ne li ñu koy xaaree kat mooy moo lim dikk woon askan bi ci wàllum njëg yu cher yeeg wàllum dund beeg nana nanga mu indi ci solution que plutôt mu nekk fii di menacer ay journalistes yu ni mel. waaw mais daf ko waroon daf ko waroon wax ni ko da ko waroon applaudir déjà ni ko gis nañ ni fay nga fay nga boru boru boru bor bi bor bu fi état bi fi gouvernement bi fi. bi fi jógee bor bi mu fi bàyyi woon deux mille vingt et de deux mille vingt deux fay nga ko euh, applaudir ko aussi ni ko mécanisme bi nga teg je pense que déjà information yaa ngi jàll les agriculteurs reçoivent seeni ay semences ak seeni ay seeni ay engrais applaudir ko ci prix semence yi nga xamante ni ak prix engrais yi ñu wàññi d'abord pour wane ni am na loo xamante ni déclenché nañ ko dans ce pays là bu boobaa nag effectivement su ko bëggee su ko bëggee rappeler à l'ordre il a le droit c'est un opposant Bougane aujourd'hui moi je le considère comme un opposant donc mun na am posture boobu bu ko neex. anti-système la de. oui mais non non non non xam nga dans tous les cas. <laughs> on le considère comme un opposant ah, parce que à chaque fois que l'occasion de tirer mu am ko il va tirer donc on a vu qu'il tire duñ ko ko bàyyil parce que tamit nekkul loo xam dañ ko ragal le président Ousmane Sonko a clairement dit que bu leen neexee ngeen génn opposé ñun xam nañu yoon bi. mais nag pour opposer il faut nga am fit il faut nga dëgër parce que fi ñu jaar saa va gaa compliqué gars yi gars yi gars yi gars yi jaar fi mais nag c'est très facile aussi nga toog derrière ton écran en tant que leader parce que le sénégalais lambda bu ko neexee mu commenter en tant que leader aussi bu leen neexee ñu commenter mais moi je trouve que en toute sincérité comme ni ma ko waxee woon au début un dimanche après-midi tu as la possibilité de rester avec ta famille tu possibilité de rencontrer tes militants rencontrer tes waxtaan ak ñoom sur des sujets yoo nga xamante ni ñoom yéen ci loolu nga jëloon ay engagement pour ma c'est quelque chose qu'il faut saluer et quelque chose de je pense que en Afrique. Mm. il faut que ñu instaurer ça parce que. boo koy jàngat li Ousmane Sonko def booy jàngat booy jàngat li Ousmane Sonko def booy jàngat li Ousmane Sonko def booy dinaa ñëw si wàññi dund. booy jàngat li Ousmane Sonko def. c'est un bilan d'étape. au bout trois mois xaar ma taxaw defal leen bilan trimestriel. bu ko jàppee nii c'est-à-dire mm. réew mi kenn dootul réew. parce que non non non non non non loolu loolu loolu. Ah, xam nga ñun ñun comme ni ma ko waxee non non non nous notre émission là on aurait pu le faire à distance bi may nekk ci oto bi di ñëw muy xat lool on aurait pu se connecter waxtaan ci émission bi mais on a préféré ñun ñëpp toog jàkkaarloo donc ni mu koy defee moom ak ñi mu àndal lay lay responsabilité bi ñoom la. beneen bi li ñu wax ci wàllu wàññi dund. am na ay canal yu mën a jaar yu bëree bëri. oui mais waaw mais quand tu as plusieurs ah, ah, possibilités. quand tu as plusieurs possibilités tu fais ton choix le choix qui a été fait c'est de rassembler ñi nga xamante ni ils avaient envie jàkkaarloo ak Ousmane le président Ousmane Sonko loolu moo leen neex ñu woo leen di leen gëj nañ gisante ñëw leen taxaw ñu waxtaan parce que li mu def nii en toute sincérité nit ñi dañu ko namoon nit ñi dañu namoon Ousmane Sonko taxaw jàkkaarloo ak ñoom. di leen wax ñuy dégg def bi ah. boo leen ko bëggee jàppee show bi jàppee ko show. <laughs> mais dafa am ñoo xamante ni daf leen di dundal parce que dafa am ñoo xamante ni ils ont besoin d' information et ces informations là ki nga wóolu moo lay jox information et ñu bari Ousmane Sonko la ñuy déglu wax na leen dégg nañ li jëm ci wàllu wàññi dund bi moi ce que li ma bëgg ñu ñu retenir ko mooy ce qu'on a vendu aux Sénégalais. c'est que au bout de cinq années sénégalais yëpp dinañ nangu ni ñu ngi ci ñu ngi dund dundin gu gën lañ doon dundee. loolu nag du ñu leen nax ni leen au bout de dix huit jours comme ni ko ñenn ñi defee woon dañu leen di wàññil dund bi pour après mu rattrapé waat la parce que nag nañu xam ni année bii ba keroog muy jeex li ñuy doxal yëpp ci budget boo nga xamante ni dañ ko fi fekk la te budget nag dafa am ay pàcc dafa am ay secteur bu ci nekk dafa am lu ñu koy alloué mënoon nañ ñëw ñu ne ah wàllu dund bi kat pour ñu wàññi ko il faut ñu jëlee ci éducation x milliards bu ñu jëlee ci éducation ay milliards fàtt ko wala ñu jëlee ci santé fatt ko wala ñu jëlee feneen ak feneen fàtt ko pour rek nax Sénégal.